dalee nag jàmm nataalu Ousmane Sonko ci mboolem yéenekaay yi nu xëyandoo li ko waral di démb ñaari kër yi attekaay yu mag ñoo doon wax ci ay mbiram waaye te ñaar yépp déggewu fa lu ko neex enquête yéenekaay direct news le quotidien ak Walf bokk bokkuluñ bindu seenu xët muy double revers ci Ousmane Sonko l'observateur ne tey laa leen di wax na ñaari verdict yooyee demee journal Futur Média bi ne Ousmane Sonko avocat yi koy layal dañoo demoon boole ji ca kanamu cour de justice bu CEDEAO ci partem bile di Pastef te gi jël dogal ba tas ko atte bi daanu démb ëttu bu mag bi nekk ci déndu Afrique ne Ousmane Sonko ñoom gisuñu ni danoo xotti yelleefam tax dogal boobee nguurug Sénégal jël di tas parti Pastef ñu bàyyi ko noonu nekkit dogal boo xam ne bett na ba àgg ci lool avocat yi koy layal moom Ousmane Sonko yéenekaay bi ne fa ñuy xultoo fa la leen Cour suprême fekk ak beneen dogal ne àtte ba juge saba si fay defoon ca tribunal ba nekk ca Ziguinchor fawu ñu xoolaat ko ndax mbir mi dañ koy yóbbu ca tribunal hors classe bu Dakar l'observateur ne loolee nag moo tax ba mi taxawoon di xaar ngir jox Ousmane Sonko ay fiche parrainage dafay mujjee xaddi yi journal bi leeral itam njuumte la agence judiciaire de l'état defoon ca Ziguinchor si du quotidien maire Ziguinchor bi daal moo ngi ci guta ak guddi gu bët setagul ay avocat am ne mbetteel dëgg lan am ci dogal yi daanu ni ki démb le quotidien ñaari dogal la yoo xam ne benn neexu ci ci Ousmane Sonko les économies moom ñetti jël la gis ci génn bëccëg ndax CEDEAO dafa jox dëgg nguurug senegal Cour suprême ne dogal ba juge Sabassy fay jëloon ca Ziguinchor itam dañ koy attewaat boole ci résistance ak ñaxtu yu nu woote woon ci mbeddi Sénégal yi kenn génnul dara yënguwul enquête yéene kaay ne ñaari jël Vox Populi ne Ousmane Sonko kay démb fépp la ñàkk Walf na atte bu doonub jongante la ñu ne état bu Sénégal dóor na Ousmane Sonko ki avocat am ñaari bal ci dara ne yaakaar ju tas dëgg moo am ni ki démb ndax am na farandooy Ousmane Sonko yu yaakaaroon ne CEDEAO atte bi leen neex lay joxe Cour suprême itam dëggal saba si fay waaye ca mujjantal ga lépp tàbbi géej ci tribune ne Cour suprême moo kastu f ne toogaay jeex na jóg jot na journal L'Info ne liy daal moo di Ousmane Sonko moo ngi gën di sori ngir bokk ci élection présidentielle yu atum 2024 Ba bu Pastef ci journal bi ne nii yoon di doxale muy ping pong muy fexe ba temps bi di dem ngir Sonko bañ a bokk Moustapha Diakhaté moom it ci biir yéenekaay bi ne gannaaw ba CEDEAO dëggal na nguur gi ci parti Pastef gi ñu tas mbooleem ku nekkoon responsable ci boobu parti dañ laa war a jàpp ñu jàpp ñun bés bi le jour mi ni mbirum Sonko bu doon match la ñu ni faaw ñu footballaat ko moom ak yoon jeexagul Vox Populi ne nit yoon itam jeexagul jàppaat nañ ko ñeneen ñuy am libération yéen kaay xëy di wax journal bi ne oustaz Omar Sall mi ñuy toppe xotti wor may tarixa tijaan ak Pape nekk chroniqueur ca Walfadjri ñoom ñaar ñëpp retour de parquet lañu am ca loxoy takk dere la ñuy nekk ba altine démb ci aljuma ji président Macky Sall moo nga woon ca Fatick le soleil national ne juróom-ñett fukk ak juróom fukk ak ñetti milliards ca xaalisu la wax ne moom la ñu gox ba njiitu réew mi jël na fa itam fukk ak juróom-ñaari dogal boole ci di artu ne du masa nangu ñuy salfaañe réew mi ku ko wet dina ko essayé xool lii quotidien lu ci mën di am daal président Macky teeroo nan ko ni teeroo buur ca Fatick Mamadou Ngom ñaa mobilisé coon ñaa moo xëy di wax li mu xalaat ci réew mi grand place mi ko fësal cew xatam ne ci assemblée générale bu mouvement jëf jot na doon amale ca sendu moom coon ñaa mi ni candidat lay doon ci élection présidentielle atum wax na boo wax li tere avancé réew mi jàpp itam ne am na ci ay pexe ak i plan ban plan la Aliou Cissé a teg tey record ne Sénégal ak Soudan